Mor koor jot na laay li may defal neex na ah xam nga ne yii dama koo gën a neex yi xam nga ñëw tëdd tëdd sa kaw di la toppatoo oh, <laughs> ah waay waay nit ki dañ koy raaya rek ñeex na ma de ay waay. ah. ma invité la. maa la wax lii. noo def ba ngay ñëw. ah yor rek. xam nga am dof la. dama koy nax rek dem. yow di ma rayal. ah du ma la rey nee naa du ma la rey tax xoolal ma yàqamti takk la ñaareel. yàqamti woo ko ba raw ma ma yàqamti suñu waa kër gi dama invité la. seen waa kër nag seen waa kër nag chaque jour dañoo war a dem Viviane. ah dof bi ba ko foofu rek gis bu ma nekkee kër ay yére yu français ay yére yu pàccax kenn xamul lu may sañ sa lool gisoo ni ma def nii or noir bi ma tuddee. moo tax ma defal la bleu noir ñu ne dégg ma ne ko jàmp mu daal di doon jàmp <laughs> Ilaay Fall Fall bi. ah. bu dee bu ma la ko waxee. bu dee on entretien nga may jël wala wala en direct. bu dee da nga may nax wala dëgg. non gëm naa ne dëgg la ñu ngay raayee nii. bu <laughs> ah, dee. waaw waay bu dee dina ma rey rek. allo. waa Tobi yaay. ah mbaa jàmm looy jooy. war naa metti maa ngi nii dëkk ba sama doomu bàjjan moo gaañu waaye su ma jógee nii léegi dëkk ba naa fa ñu am na ku aay ku fi nekk dinaa ñëw foofu ñu ànd fi ñëw la wax suba ba ngoon danga koy gis te moom la waxee bi nga koy ànd fi ndax sa problème sama problème da yaay sama doom yaay naa ñëw de waa dalal da nga ànd ak tey dooy fajul dara continuer di wër nga annoncé ko ci hôpital ak police ak yooyu waaye waa amul problème noppi na nga bàyyi jooy waaye ndox mi may doon wax. yow bu yow doon nit. Fall man kii jommi naa si moom. waaye ba ko moo xam. doom yaay sama liggéey dem ba tey. nga jooy dëtt dëtt xam nga dëtt dëtt. dëtt nag yi dee dëtt. ma def loolu xam nga awa dañoo tudd. waaye waaye maa ngi daanal sa portable faral sa portable bi mu ngi daan. ndax kontaan. xam nga lu ma la préparé woon. yàlla nga xam ne koy ñëw ci man moo woon préparé naa la benn sur le plat bu toog. te xam nga rek indi lu ko am lu ma def ak yow. buy rek may nga xool test bi ah. ndax dina nax. dina xaar ma eh, ñëw wuy eh, ma eh, xoolal jaagan jaagan gi aywa. <laughs> kontaan rek laa bëgg. ñu ngi si kaw. balaa ngay taxal sa biir neen bii nga xam ne fu waay toll muy tàkk. ci bu la ay maa ngi lay gis <laughs> <laughs> bu yee di man escanté. waaw ba ba suur mu rees ak jàmm jaral la waaw bu lii omelette kese la. kese la dara la et puis pomme de terre kese la. pomme de terre kese la. raxul dara. raxul mu rees ak jàmm jamono moom. salaamaaleykum. ma ne ko kooku sama doomu ndey la. waaw doom ndey ci loo nekk. ci loo ne yow. tey. maa la bëgg. maa la raw toogal. safu dama koy xool samay bët di raal di taaroo ma ñu bëggee dama ko bëgg ci sama xol. xam nga nag waram sëyu naan sëyu sëlaal taxawal rek mooy ma bëgg koo récupéré ah. defar ko ma ndax ko defar mu dem yow xool ko rek xool ko kaw ba suuf ko exactement kontaan naa ci yow na lii moom moo fi indi woon may sa doomu ndey kii bu ko may dara may fëllee kii ah, na nga yóbbu am rek dara waaw dara du ko ko may man rek man ngay waxal de waaw waaw jot na ma dégg ko <laughs> lii ma ma neex yow jaaree a. Ah? waaw yow jaaree naa la fi bëgg a. Ah? kii sama doomu ndey la lu yënd ci man xanaa ci ah. mu dee ma xam fa lu fa woo xuri ma. man bu ñu dugg si sa damaa tiit. looy bu ma ñëwul woon fekkee lii sax dama koy yëg. dama koy yëg. ndax lu yënd ci man xanaa ci moom wala dafa leer tamit <laughs> li fi xew fii nii yëpp. Eh, dama laa niroo kuy dem. kii sama doomu ndey la. man sékku mag naar yi. déedéet kii mooy sama doomu ndey. maay doomu ndey ñett dañuy ànd rek. dañuy ànd rek ñëpp xam ne sayul. parce que dama xam ne sama jabar lanti noor la. ah léegi yow man lu ma ci. moo waral. ah xam nga dara dara mi ndey. waa jàmm moom ak moom rek. boo tëddee ne la wala sa ginnaaw ba ndax. waaw wuy ma yow maa ngi dem damay bañ a yàq lii. après naa fi ñëw yàlla xam na ni moom fi. sama doom war nañ wax ak moom naar sayul de. maa ngi lay xaar ñëwal ñu wax xam nga sama doomu ndey la ci kanam dinañ déggante ah waaye ni mu lay jaaxalee yow ba bëggut soog ba heure bii kay xamal ni fu mu nekk moom bàyyi ba ko. waaw li mu mënti mën a sama nijaay la. ah sama nijaay la de sama nijaay la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Mor. Eh. <laughs> Mor ak Mor. ay waay sax ci loo de. maa ngi nii. doom day. Mor xanaa fii ngay liggéey. lan. fii de sama kër nijaay. xaaral ma toog. sa kër la. kii ñoo bokk dëkk. waaw sama bu jigéen ko ñun kii lay sëy ji. yow sa sa borom kër xam ba mu fay jógee daal ba mu fay jógee. war na ko la lii du xaritoo bu tiis bi lan la. anamu. xanaa ah naar loolu moom woo nga buye. yow woo naa ko ne daa na ne. buye naa fu mu def. buye bu ma jooyloo. Eh. nee naa la nee naa la kii jooy génn ju jooy génn jooy indi wu ko de ah, jooy waaye sa jooy yi nga ne ma ana buuya daa tukki man de këram laa jógee waaye daa tukki te la daa tukki hmm. waaye hmm. góor la hmm? eh xam nga lu ñuy def te eh, yow boobu ba tey tax woo ma danga may wax ni buuya mooy sa doomu day man mii di doom baay di doom day lu tax woo ma ah. bokk benn dëkk man moom. waaw ah. moom bokk benn dëkk. jaaxle boo jaaxle ñëpp ngay woo.

sëy bu métti bi yow yaa gën a xam ni sëy di góor dafa manqué tamit sa jëkkër ji toppatoo ko yaa ngi ci métti waaye bu paree nañ ci wax waaye waroon ngaa dem kër buuya xooli sa jëkkër. yow loo décidé. ah xanaa ma a ñu xool bàjjenu gox man dama xool ndax loolu lay seen war ci dëkk bi. waaw. léegi man maa ngi egg kër ga dans toutes les nga def ñu si. d'accord te nga sa sëy bi naaj. tey moom mënumaa wax ak yow. mais après nañ ci wax dégg nga du courage incha allah. na décourage pas na décourage pas tout est tout est tout est impossible mais na décourage pas wax dëgg yàlla métti na nag wax eh, ah, mi moom ay torsom yàlla na ko niir rek yàlla na ko niir rek. waaw waaw jërëjëf dama waaw maa ngi fi man maa ngi boo ñëw boo mënee daal ndogu ma umpare foo jublu yàlla fi yàlla jublu ku ne lu woon yàlla këpp su moom yàlla ko yàlla nit umpaañ waaw daf waaw <laughs> bilaay sama nijaay mooy caga yàggal la <laughs> sama nijaay foofu moom yàlla sax gisu ko <laughs> moom ñëw dina ñëw du fa teg yëpp amul sax bay aali dafa nekk dëgëram ak jarfaatam